capitalu Sénégal doon bërëb bu gën a am solo ci wàllu tourisme loolee tax a jug ville de Dakar ànd ceeg association góorgóorlu koom-koom ngir nag jëmmal mbébét bu ni mel tax ñu fas yéene di amal li ñu du périkat lu ñu bëgg moom mooy ñu développer tourisme bi que tourisme bi bu développer rek dafay am loo xam ne da koy indiaale bu tourisme bi doxul culture bi dafay laaj artisanat bi dafay laaj donc yu bëre ci secteurs yi dafay laaj moo tax ñun ñu wax ne kat rencontre yi nañ ko tënk jëmale ko ci ay secteurs yoo xam ne secteurs yooyu ñoom ñoo gën a am emploi ana lan la dakaar mën a fësal ci wàllu tourisme naka noonu ci yan anam la ñu mën a fexe ba jaay xar kanamu capital bi ñaari thèmes yooyu daanaka moom la ñu fas yéene waxtaanee ci ñaareeli édition bile. am na loo xam ne nekk na ci biir gox yi xamuñu ko la preuve fii euh, tourisme boo waxee monument la ñuy wax gore la ñuy wax feneen la ñuy wax mais am na ay ruq-ruqaan yoo xam ne ñu ngi ci biir dakaar mais bés bu ñu ko découvrir touriste loolu lay gën a ut. ci diiru juróomi fan ndaje mi di dina tax ba ndakaaru daal di yëngu ci wàllu koom-koom waaye itam ci aada ak cosaan. borom xam-xam yi dana ñëw wax ci forom bi euh, euh, euh, artisan yi nga xam ne ñi ngi biir ndakaaru dana ñëw wane li ñuy li ñuy dana ñëw wane li ñuy liggéey ñoom aussi ci seen biir dana mën a créer dana mën a lëkkaloo ci seen biir. pour mën a xam ñoom naka na ni euh, naka na ni avancer leen avancé seen liggéey. ndaje mi ñu du périkat dana am la ko dale benn jàpp juróomi fan ci weeru novembre fii ci Ndakaaru